acteurs politiques yi ñu bëri dafa mel ne pare wuñu ma a xam ba xam le professeur Daouda Ndiaye moom pare na pour que les élections se le vingt cinq euh, février bi bi bi ñu jëm. mais Mamadou mënuñoo sonn ci àll bi. depuis mm-hmm. deux mois ak le parrainage avant le parrainage ba tey on est deux jours. Mm-hmm. de l'ouverture campagne électorale. mu nekkuma fi sama yeneen na naataango yi mais je sais que tous les vingt candidats sont prêts loolu mooy dëgg bi. Mm-hmm. parce que mënuñu sonn ni ñu sonn ba aujourd'hui déployé nañu lépp. nos représentants au niveau des des, des bureaux de vote lépp lépp def nañ on a déboursé tout l' argent qu'il nous pour mënoo xaar ba à deux jours ñu naan la dimanche ngay commencé nga ne pare on est tous prêts donc là je mes collègues en fait mes autres candidats gars yëpp pare nañu. les vingt candidats en course ñoom pare nañu. non mais le problème de ñi nga xam ne xëy na bokkuñu. de moo indi problème bi yëpp jamono ji. mais dans une vie on parle de démocratie démocratie fépp. Mhm. mooy boo demee compétition am ku gagné. nga nangu bu subaa kooku day perte yow nga gagné élection yi dem ah kii kii falu ci Sénégal Mamadou est-ce que xam bëgg naa ko mais xaw ma kan la. Mhm. kii fal yàlla fal na ko ba ñoom ñoom irrégularité la ñuy dañoo matalul pour dem. Mm. parce que c'est c'est de graves accusations la ñuy la ñuy dund jamono ji. man avec du recul Mamadou du ma wax lu ma xamul. Mhm. li nga may wax su ma tegoon sama bët ma téye ko du man amul de mais soo ma laajoon preuve man awma ko parce que awma les preuves matérielles. Mhm. parce que tey su ma waxee dara buñ ne nga teg ma ne la ko dégg. je ne fonctionne pas comme dama ko dégg. est-ce que du tout au contraire nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes des amis déggoo ma ne la man mii di wax kan moom wax ne élection yi arrangé na ma kan moom wax ne élection yi dinaa ko fekkee. Mhm. yàlla mën na ne waaw yàlla xam mën na ne boo duggee ci élection yi sa bakkan du ko fekkee. mën mhm. na ne également mën nga ci yàq sa xaalis te doo gagné chacun son destin. donc man juste on n'est pour faire des calculs ce qui est important mooy. Mhm. li ma bëgg rek mu xam dégg nañu on dit ngal la waay le plus grave mooy mi ngi gën a enflé débat politique bi mi ngi yokk man gisaguma ci encore ma luñ ma teg loxo teg nañu table baa ngi di lii tax ñu war reporter élection yi de façon claire loo xam ne dafay indi un problème de au niveau du Sénégal mais Mamadou boo nekkee bi Covid bi ñëwee bi ñu génneloo suñu kër yi mhm. bi ñu la génneloo seen kër yi ne la bul liggéey toog nga ndax gis nga ne c'est l'intérêt du Sénégal qui était te loolu moo arrangé ñëpp si les Sénégalais disent au report ñu ñëpp jàpp ne loolu la ñu amul ci luñ ci wax. mais bizarrement le peuple Sénégal n'est pas pour un report. donc comment ñenn ñi la euh, mais est-ce que tamit yéen jàll. amu lu ngeen war a def pour organiser pour pour pour protéger bokk euh, la tenue de cette def ko tous les candidats j'appelle soit serein qu'on fasse respecter la République que Sénégal continue di dox. Mm-hmm. parce que am na loo xam ne bu doxee baaxul ci réew dafay yàq image réew li réew bu ñu koy dox te lépp lu nga xam ne war na ko ternir son image ci biir ak ci biir dañ ko war a moytu mhm. donc man ma ne par force dañu war a dem élection su fekkee un système sénégalais la te mu leer ma ne lii day sànq Sénégal je suis pas un patriote mhm. maintenant bu ñu ma bëggee forcer ne parce que arrange wul diw ak diw parce que lii ak lii ak dañuy rey mais élection dañ fay dem. amoo doute que ne dafa quelque chose qui se trame jamono ji parce que le PDS qui demande une enquête ñun amuñu aucune information nous les vingt candidats pour man sauté lu gënoon a li li gënoon a nice li mhm. gënoon a rafet ñun ñu woo ñu ne lii impliqué leen lii moo xew mhm. mais c'est comme si nous sommes les candidats ñun dañoo war a dañoo war a suivre le train qui marche ce n'est pas possible ce n'est pas et on l'acceptera pas mhm. tant nag la war nañu lu leer Mamadou bu ñu mënee lii ak lii te lii mu gën ci Sénégal Sénégal bu ñu ko day këpp wala di dëpp te mënuñu ko renverser